dëgg fi may waxee wu la. dëgg la moom lay wax na la ko leeralal booy bii. du <laughs> yàlla du set yaay kat yi. Mm-hmm. moo doon way naan ragal du jéggi raay. la waxul pour raay. Mm-hmm. déedéet. la wallaay wax la. wax la ragal dégg. Mm-hmm. mais bu la. non loo teg ci ne. ku jaar ci suufu guy. xam la muy meññ guddi. da nga faa jaar ba

avancement lii nag boo ci nekk doo tricherie jeex. Hmm. lii mais naxaate bi. waaw boo bari ak jaayante bi ba pare rek. ñu bëgg ko dëggal. Hmm. dinañ mooy Yves li nga wax pourtant mooy Yves sànq boo xool. galo Yves tënk na ko. Hmm. mooy ñi ànd ak artistes yi. non c'est parce que ñoom loolu mooy. seen métier war na bokk amuñu xëy. xam nga tey boo di boo dégg man maa ngi déglu fan yii la la apporter dara. wax ma ne fan yii maa ngi déglu. Matar Seck Mboro. Mm-hmm. ay point mbooro mm-hmm. dégg nga mu dégg ne àdduna mm-hmm. ku ni neex na rek ba nga juddoo yàggut dëgg la waaw Matar Seck Mboro mu ne àdduna neex ñun tout tànk yi nañuy déglu mataar Seck Mboro dem leen Oustaz Seck Oustaz Seck nañ koy teewlu Oustaz Seck ci boppam nañ koy teewlu gis nga xam nga ni maanaam xam nga lu mu la tegal foofu dañ seetaan naa ko koo dégg ñu naan koo dégg mu naan suñu kër geeki neex dañ koo yarul kolam dëgg la de teg ca ni koo dégg mu naan la ma yor caaxaan yóbbu ko la mu njëkkan yor caaxaan ko yóbbu li ci des lay rawale. jeex na tàkk mooy li Iba gis nga booy ànd ak nit. naa ko fi Iba gis nga booy ànd ak nit. man bu dee Iba Iba dama ko bëgg bëggal ko ndam. naa xool Iba bu Iba juumee ma ne ko eh père tey. Oh. bien sûr. parce que dimbali naa ko. suba bu ma xoolee mu def. galo def bu baax naa ni oh. yaaram baax na mais war na mën a gën a baax waaw mais du def lu bon adduna ñëpp xam ne lii dafa bon nga ne ko yaa fi baax na mais baaxul mais baaxul lu baax moom lu baaxul baax hmm. ki ko def mooy njëkk xam ne baax na wala baaxul maa la ko wax lu baax ki ko def loolu sax sëriñ Cheikh nee na baax baax lu la ko wax kenn sax te pourtant pourtant ñaari ndaanaan moom lañ génn kii lu Pape mhm. Diouf wax démb wax naa ko fi dafa ni mhm. écoutez man leen écouter mooy tubaab. Mhm. waaye olof mooy déglu. Mhm. lan ngay déglu. maanaam ki lay déglu lan la lay déglu. waaw ak yow mi koy déglu ban mhm. dégg nga am ba war a déglu. waaw te pour nga déglu faw nga am état d'esprit. dëgg la am dégg. kaay baax na. hay habibi come <laughs> from to Dubai. <laughs> non c'est vrai. non mais foofu la un plus un.